Momar Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Momar Diagne nga nekk membre de la commission de l'AFTU ñu gis liggéeykatu AFTU yi muy trans muy chauffeur yeeg receveur yeeg contrôleur yi depuis trois jours euh, dañu banque seeni loxo euh, lan la ñuy réclamer exactement patronat bi. bon ay contrat de travail la ñu doon réclamer ak avance. bon euh, négociation yi yàggoon na. d'ailleurs on a tenu une réunion euh, il y a à peine un Et on les avait demandé de, de, lister tous les chauffeurs et receveurs qui viennent avec après ñu ñëw ak liste boobu pour que ñu defal leen ay contrat parce que mm-hmm. effectivement y a xam ne bëgg nañ contrat mais xam nañu loolu bon donc ñu ñu indi ci ginnaaw déposé préavis de grève boo xam ne sax ñoom amuñu préavis de grève bi gisuñu ko mm-hmm. bon donc euh, euh, samedi dernier ñu defee réunion après le directeur général du SETIT après daf ñu woo woo en même temps les syndicats pour que ñu trouver un terrain d'entente bon bi ñu ñëwee trouver nañ terrain d'entente parce que d'accord nañu ci contrat yi unanimement ñu ne dañ koy signé. Hmm. bon en qui concerne avancement yi ñu doon leen avancement yi loolu day dem a contrat bi les avancements vont avec le contrat. Hmm. parce que avancement ñaari ñaari type avancement moo avancement euh, général kooku état moo koy def ça concerne euh, euh le secteur privé xam nga am na bu bu dugg ci mois de juin bi am na bu duggoon en deux mille vingt donc loolu bu fekkee ne déjà am nga euh, am nga contrat de travail automatiquement c'est automatique parce que mënoo defal benn bulletin en deçà de ça. Mm-hmm. bon bu fekkee ne ku amuloon contrat de travail la nag comme ñoom ni ñu ko waxee ne am na ñu leen di fay ay cent mille francs ak euh, ak quatre vingt dix mille boo si xasee signé contrat bi da dugg ci loolu donc déjà loolu c'est un avancement parce que boo jógee cent mille dem ci yooyu lañ d'accordoon quoi ci yooyu lañ leen proposé donc ñu ne dañuy dem waxtaan ak seen base et il devait revenir lu revenir le dimanche pour que ñu signé protocole boobu malheureusement ñëwuñu taw nañ fa di leen xaar ba ba seize heures après directeur général CETUD ne bon comme que toog nañ fi ba seize heures un te ñu leen di woo ñu ne pare gu ñu réunion donc ñu nañ dem mais heure bu ñu paree bu ñu woowee après ñu signé protocole mm-hmm. malheureusement euh, ils pas revenus. si noonu la ñu demee ba décréter trois jours de grève. Euh, kon normalement demain euh, war nañu reprendre liggéey bi. non war nañu reprendre liggéey bi parce que trois jours de grève lañ moom moom lañ décrété mais euh, AFTU aussi xaalis bi muy liggéey chaque jour bari na donc bu toogee trois jours liggéeyul normalement y a beaucoup de pertes économiques est-ce que mën nañ ci am évaluation. bon perte économique bi vraiment bari c'est immense bari trop. parce que boo xoolee actes yi dañuy transporter un million trois cent mille passagers par jour donc boo toogee ñetti fan liggéeyu loolu xam nga day nekk euh, presque ay euh, presque ñeenti millions yoo xam ñeenti millions nit yoo xam ne yi waroon nga leen encaissé te encaissé wu leen donc loolu perte est énorme la mais à part loolu aussi euh, station essence yi nga xam ne yi nga xam ne ñu doon carburant bi ñu doon consommé jënd ñu ko donc loolu station bi dina ko yëg bon gouvernement bi aussi économie l'économie euh, euh le transport transport transport moo yor donc transport bi bou amee sooxee dina feeñ ci économie nationale bi te loolu du ñun lu ñu ko quoi vraiment lu ñu doon éviter la parce que boo gisee ñu liggéey ak CETUD ak euh, ñoom le dimanche à à a heures ah c'était pour éviter éviter loolu te directeur général CETUD ci loolu la leen gën a sensibiliser dina leen man euh, population bi laa gën a yërëm ah ainsi de suite ainsi de suite mais de. voilà mhm. te loolu day aussi. dëgg la euh, léegi est-ce que doon ngeen négocier ak ñoom est-ce que léegi waxtaan ngeen ba juboo après grève bi wala ba léegi tënkoogu leen ak ñoom. bon ba fi may wax ak yow nii euh, ba fi may wax ak yow nii euh, toogu ñu waxtaan mais dinañ toog waxtaan parce que. Euh, àddina fi lu ci mën a am euh, ci table lañ koy négocier toog waxtaan ko donc nous nous sommes vraiment ouverts pour toog ñoom wax amul problème. Mhm. Euh, tey jii aftu yan difficulté lay faral di di jànkonteel patronat bi ak liggéey bi lan mooy seeni jafe-jafe. bon suñu jafe-jafe bi bon mën na leen ne concurrence déloyale bi bokk na ci. parce que da ngay gis ay oto yoo xam ne yi ñu ngi leen immatriculé Tambacounda yi Ziguinchor wala feneen a feneen mais boo ñëwee Dakar da da nga leen di gis ñuy ñuy xëccoog euh, le transport urbain clients yi mm-hmm. comme benn la ñaar bi par exemple le transport illégal aussi par exemple quand il dit clando c'est parce que c'est un transport illégal ñu ngi ñu ngi concurrencer même euh, les jakarta et autres sax ñu ngi leen di concurrence léegi te transport urbain euh, oto bu am licence urbaine yooyu yaa ko war def mais da ngay gis oto yoo xam ne amuñu licence urbain amuñu licence Dakar amuñu seen mais dañuy ñëw dina concurrence te mënoo ci dara même concurrence bi ça va au de au delà de ça parce que da ngay gis par exemple man par exemple man fonctionnaire la dem wala agent la euh, je travaille dans le secteur privé Mm-hmm. maa ngi dëkk Kër Massar maa ngi dëkk Rufisque et ainsi de suite mais bu may liggéey le matin mais damay yeb damay transporter nit loolu yéen xam ngeen ci dara. Mm-hmm. di nga gis ay particuliers yoo xam pour liggéeyi te dañuy transporter nit te loolu c'est un transport illégal loolu lépp ñu ci biir transport bi te euh, réglementation bi day tere loolu parce que am na loi boo xam ne bi day tere loolu day travers day tere un transport illégal illégal Sénégal mais texte yaa ngi fi mais application bi moo def. mais mais lan lan moo tax kon état bi mënul appliquer loolu pour mën a réglementer secteur bi on une bon fois pour tout mais loolu laa la wax nee naa la hmm. état bi def na ay textes mais application bi mooy problème bi. waaw léegi loolu laa la wax problème application bi fan la nekkee si takku der yi la wala. ah non du ma accuser takku der wala kii mais en tout cas daal. Mm-hmm. l' état doit prendre ses responsabilités parce que l' état bu génnee un décret. mu am décret état bi war naa veiller à ce que loolu sexe yooyu ñu respecté ko ak ku mën di doon mu respecté ko. Mhm. transport li ko ci war mu def ko. Euh, keneen ak keneen ku ci nekk li la war nga def ko. application boobu état bi moo war a superviser ne effectivement application bi lii la ko dañ koy deful ay ay ay daan dina tegu sax loolu loolu état la loolu état la. léegi bu mhm, mhm. ma par exemple tel tel kii tel kii noonu non ma dugg ci yooyu quoi. Euh, mais ku nekk daal nga waroon def moom. voilà ñu wax tuuti si euh, accident yu bari yi euh, récemment actuellement rek am na benn accident bu métti bu am ba ñaar fukki bakkan ak ñett rot euh, yow na nga ko gisee mbirum accident yi ba léegi. non mbirum accident bi bari na Sénégal et c'est c'est li muy am bari na li muy am bari na bon partout dans le monde il y a des accidents mais il faut il faut minimiser le risque quoi. c'est-à-dire créer des conditions yoo xam ne risque bi du bari quoi tu comprends parce que en général accident moom euh, facteur li nga xamante ne mooy nit euh, visibilité bi aussi tali bu leerul surtout bu dee guddi mën na ko kii man na ko mën na ko causé euh, problème technique aussi ci oto bi mën na lumière yi leerul wala lumière yi leerul lu bari sax ba kii ñëw ci kanamam gisul wala tali baaxul wala tali bi amul éclairage wala tali bi dafa xat yooyu yëpp ay facteurs la yoo xam ne dafay indi accident. vraiment dafay sédan quoi indiscipline bi aussi dafa bëri ça il faut le dire donc il faudrait que mooy li ma doon wax hmm. réglementation mais mais tamit si li indi accident yi surcharge si la bokk te gis nañ aftu da ngeen di jël bus yi sol ko ba mu fees loolu aussi loolu ngeen ñu si mën a wax. non euh, aftu aftu six cent jours xam nga y' une convention internationale boo xam ne bi ONUDI ñoo ko ONUDI c' est benn branche la bu nekk ci Nations Unies loolu. convention boobu dafa autorisé bépp oto boo xam ne bi minibus nga li ma lay wax minibus je précise bien minibus minibus amul si charge minibus amul si charge te kooku pays yu bari dont le Sénégal dañu ko ratifié donc boo demee ci capitale yi àddina yëpp ci ville yi àddina yëpp minibus boo fa gis day am place yu debout taxaw ak place yu toog ci àddina yëpp laa wax nag hmm. du ko loolu du Dakar rek la am boo demee dans tous les pays du monde ci globe àddina bi yëpp laa la wax am na fa parce que euh, euh, convention ONU boobu ñooñu pays yu bari pays yëpp dañ ko dañ ko am na ci pays yoo xam ne dañu ne bon par exemple tant de mètres carrés ci oto bi tant de personnes moo ci war a taxaw ñu ne non non bon oto bi tant la war a changé kii am na ñoo xam ne dañu ne par exemple tant que buntu baa ngi tëju par exemple si saa amul loolu ça dépend ci option pays yi quoi et pays mais pays yëpp ko sa pays yëpp ko ratifié ah bu fekkee ne nga voyagé boo demee dans toutes les capitales du monde loolu am na fa donc c'est pas propre au Sénégal du du Sénégal rek la am du Afrique rek la am maa ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf maa lay remercier bu baax. voilà may ni membre nga ci commission bu AFTU merci Momar Diagne. Euh, waaw jërëjëf